dëggal Momo jàmbaar tey nan nga gisee fii ñu ñëw ci Caaray Géej gis fi Reug Reug waa Caaray yëpp uuf ko ànd ak moom mu jëm ci bis bu rëy diggante ak guy gi nan ngeen ko waajal. mais ginnaaw yàlla bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba état de bi loo ci gis. xaw ma ci xam nga nit. entraîné wala entraîné wul. ci super forme vraiment. amul ay lex de. waaw kon koo xam ni kon nag bés bi ñor nañu trop bés bi man mi la ñor te yaakaar naa ni. Xaadim Njaay ku ko xam ci fulla ak fayda ko ko xamee guy rakk la mbër mu yaru la mbër mu baax la champion la tamit mais ñaari champion bu ndajee il faut que am ku dem am ku resté te yaakaar naa guy gi mooy resté. gis naa magu caare gépp ñëw uuf rek rek boot ko mu mel ni bis bi dafa am lu mu leen jaral du doon pression ci moom. man li yàgg naa ko wax le respect et le réciproque dañu war a bëggante respectante tey boo ñëwee caare xam ni lii lu yàgg la lu yàgg la woon mais xëy ni la ko yàlla bëggee mbooloo moo doole te mbooloo mi ñu nag ku ci nekk dugal nga sa ci Reug Reug pour ni mu war a bëree ak Reug Reug ni mu a bëree ak guy gi kon li ñu indi xaju ci guy gi sax. en tant que expert. Xaadim Ndiaye mi bëreeg Moustapha Gueye Xaadim Ndiaye mu bëreeg Baboy Xaadim Ndiaye mi bëreeg Yaxya Diop Yékini tey boo doon ngem muy bëreeg moo boo doon conseil muy bëreeg euh, guy gi nan la mën a bëree combat ba daan ko ci en tant que. non bu yàlla wéyee dañ koy bu bëree dañ koy daan bu songee dañ koy daan kon ñëw daan dong la am ci combat lu mu def daanu lu def daanu man maa la ko bu bu levee vingt deux heures nag woo oh. ba def tontu laa lay yëgal bu gémmee xeex sa boo xefee ñu dóor ko mu daanu waaye bien sûr bu gémmee xeex boo xefee sax ñu dóor ko mu daanu c'est parce que ñun dañ ko préparé moralement tactiquement mais di ñaan yàlla nag yàlla mi may ndam may nu ndam mais ku xool rek rek mi ak rek rek moo woon xam ni ça fait deux merci leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant woon tamit waa Caalaan ñoo joor Falia Sow Basaar Basul képp kuy jàppale Reug Reug maa ngi lay sant bu baax a baax di nuyu waa Mbele tamit bu ma limee damay juum maa ngi lim ñëpp daal. waa Reug Reug ñu gis la combat bi bi mu taxawee république yi mat na trois ans nga topp guy gi ne ko pour mu may la chance nga topp guy gi ne ko da ngeen war a daje topp nga ko fu ne fu guy gi nekk fekk nga ko xam nga ki nga jël ku ne ki nga jël xam nga ko bu baax a baax a baax xam nga ki nga jël xale yi nga xamante ni moom la ñoom la freiné waaw guy gi champion la dagul naak ak champion mais xam nga àdduna mooy li may wax nit ki bala ngeen a nit ki bal ngeen a laale maanaam il faut ñun ñamante ba pare ngeen doog xam kan moo mën sa morom mais daal man maa ngi ñaan yàlla suñu borom may ma ndam si barke Seydina Mohamed waaw. démb seetaan nga guy gi gis nga ni guy gi combat bi da ko jaral. physiquement guy gi dafa taxaw. ba pare dafa indi xeex bu métti. Reug Reug maa ngi lay nuyu. Reug Reug combat bi naka nga ko préparé parce que dañu gis ni physiquement tey da nga taxaw bi ci des mooy. dañoo gis 100 pour 100 bi yëpp caare géej bi ñëpp génn kenn desul Xaadim Ndiaye gis nañ ko fi Issa Pouye Coly Faye numéro 2 et tant d'autres laaj wala lan. waaw ñooñu samay papa nañ su ma nee Xaadim Ndiaye 1 Xaadim Ndiaye 2 Ousmane Diop ah Issa Pouye Baye Mandione nag micro ah, euh, ñun ñun ay lébu nañ te lébu dafa mën a sot te ñoom suñ suñuy papa nañ suñuy lëb la tatagal nañ def nañ def nañ daal lépp si ñun maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax ñoom conseil nañ ma quoi. waaw Reug Reug maa ngi lay nuyu. maa lay fay. gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi alayhi salaatu wa salaam di leen gërëm yéen ñaari mbër yëpp. Mhm. di ñaan yàlla ngeen ko bëri si jàmm. Reug Reug ñu gis ne caaroy géej. Mhm. yëpp parce que bu ñu waxee dañ ne Reug Reug bëre rek est-ce ñeme nga taxaw ak guy ki xeex ak moom bagaar ak moom te ñu bàyyi bëre parce que. non lamb moom lamb bëre dóor nañu wax mais ñun moom. waaj nañ ànd ak suñuy mbokk dañuy ñaan ak yàlla suñu borom may ñu ndam mais li si def def nañ ko waaw. mayel Modou Anta ñëwal Modou Anta. maa la fay. waxal ci mu dégg ne dugg nga si cinq fois boo njëkkee na seeti nañu guy gi. Hmm. guy ne dugg nga foofu cinq fois waaye boo njëkkee woon hmm. dootoo fa dugg. waaw moom dogalul yàlla suñu borom nag mooy dogal ah yaa may dégg mënoon na see bokk tamit te terewul damay bëreeg cinq ñooñu ndax yàlla suñu borom moo ko namm si man kon wax jooju amul lu mu ma si soog quoi waaw moo tax mhm. moom guy gi moom moo fonk combat bi man mii xale na laa war a def bu fonkee dix fonk naa ko mille waaw waa Thiaré dañ maa yónni yàkkamti ma bu demee nag ba si biir géew lu waay di wax rek nañ wax guy gi nee dafa pare pour corriger la parce que moom nee benn du may benn xale muy jaar ci kawam waaw guy gi mënu maa corriger yaa may dégg yàlla bu namee ne dama koy daan ala ku leen dama koy daan dégg nga ma mais moom du ma waaw. waaw ñun moom luñ ciy tontu du bëri dañuy bàyyi ba bés fa rek waaw bés ba moom incha allah ku ko tardé di nga tardé du rëy bu fekkee moom ni muy waxee moom dëggal na ko incha allah combat bi du gaaw. déglu du gaaw laa la wax du gaaw. bu fekkee man na maa tenir dafa nang bu fekkee moom mën na maa tenir combat bi day gaaw bu fekkee mënu maa tenir nag yaa ma gën a xam ndox du bàyyi yoonam. gars yi nee nañ bu koy fay fay ma. yaa mhm. man jëluma kii mag laa wala man maa war a sama bis sama kaar respecté. Mhm. sama moom la si man néew ma fi naan kii mooy xale yaa war a dem non bu leeree rek ma dem bu leeree bu leerul ma taxaw ndax waa Caare dañ maa yónni ti ma ci xeex bi ci xeex bi xeex bi dinañ ñeme taxaw bi di waaw sa xeex yow si la le bousé ah eh kuy sa papa ñu ne jaay kon ñun ay namuñu ay xeex xeex fii la buujoo par sëñ bamba combat bi fan nga ko préparé combat bi fu ma ko préparé xanaa caaray laa ko préparé waaw caaray laa ko préparé ànd ak samay waaw. lan ngay yóbbante guy gi yan kàddu ngay yóbbante guy gi. dama koy ñaanal jàmm ñaanal ka ak ay supporteram wér ba jour ba ñu ñëw ñu feesal stade del yàlla suñu borom may ma dam ma dem sama yoon. non violence. waaw non violence. ñun moom ñun ay lébu nañ ñun moom xamuñu loolu waaw. waaw. moom laa la wax dañ kaa fay fay ma millions yi ñu fay man la moom lañ ma fay amul xale moo war a def si bis ba daal lu mu leer lu mu laaj ma def ko bu laajee taxaw ma taxaw bu laajee dox koom ma dox si koom du ma ko dàgg voilà waaw waaw li olof di ay di wax ku la jiit si dégg lan ma lay fi nga toogee defe naa foofu laa bëri jir ah waaw maa ngi koy maa wax mu ñëw waaw Reug amul xale laa dañ ko amul sens dañ ko fay fay ma yaa may dégg mayuma sens làmb moo ñu boole moom dégg nga ko si biir communiqué am danaan la kii boo ko jëlul ren déwén boo ko jëlee day gën a métti fi nga jël nag moo gën a métti fuuf moo gën a bon ndax Reug Reug mi xam nga maa ngi wax benn kalam mais bàyyi leen si xel kàllaama naa indiwaat muy maanaam gisa nga uppa ñuy dem géej ñuy dem géej ñoo xam loolu sama gars yi ah waa Thiaré ñoo xam loolu. lan mooy uppa. uppa uppa bu ndaw mooy xale bu ndaw bi as. léegi pour déglu ma fii pour moom maanaam uppa bi lu mu def ba xëccu day xëccu nar mag lu taxaw si kanamam rek da kay fexaat par force day am nar a mag noonu la mel guy par damay am nar a mag. cey uppa. Reug Reug Reug Reug dama ànd ak Reug Reug dama ànd ñu ñëw fekk la fii caaray géej nga taal gaal bi yóbbu ñu ba ci biir géej gi teg ñu ci benn gaalu maare saxaar boobu Reug Reug rek nga soxla Reug Reug ne du bëri ak bu guy gi ne du bëri ak yow nga ma bis bu boo ma guy gi jëlee dinaa ko tuuma dinaa ko daan mais wax boobu tey dafa mel ni dañ ciy génn ndax ba bëri ñu ngi la koy laaj ne na nga woo cee wax non du ma si génn ndax man man ne lébu laa du ma wax di si tëll ginnaaw bu su fekkee mën na maa tenir laa dina neex dina yëngu xaw ma nag ma dóor mu sàngooy loxo ñëw songo ma waaw leer na tontu naa la voilà ji ñaar minute waaw